waaw mbokk yi nee naa leen tey waa Jaasi gi ñoo organiser li nga xamante ne mooy seen sortie album euh, seen mbokku artiste nag muy euh, sang bi sang bi sa yaram tàng na ndax def nga lu doy waa ci public bi wala ci kaw pëjëm bi nuyu nañ la te di la wax lan ngay wax sa fan si donc euh, sama yaram tàng na dëgg la ndax fi dama fee gëj loolu mais nag fi laa dëkk

ñëpp a ngi yuuxu yaram yi tàng na macha allah tey ñaata album ngay jënd ñaata. man du ma jënd album duma ma jënd album mais produit bi laay jënd. dégg ngeen loolu. produit bi laay jënd man du ma jënd album produit bi laay jënd. Ah, kon kon lan ngay wax mbokk yi nga xamante ne ñoo lay suivre ci musique bi. li may wax mooy que ni ne kenn ku nekk dem jëli ci album bi donc Diassigui forever bless and love.